ba tey wàllu list yi euh, gis nañu coow li coow li bëri na bu fekkee ne en réalité parce que yéen Benno Bokk Yaakaar ne ngeen askan wi moo leen tax a jóg mhm. taxawal ngeen benn plan ne plan Sénégal émergent mhm. buy jëmalee jëlee réew mi ci benn point yóbbu ko ci beneen point boo xam ne ci yokkute lu koy mëne mhm. bu fekkee ne askan rek moo leen tax a jóg est-ce que bu ñu jibee jëm ci élection est-ce que dinay jar coow lii yëpp bu fekkee askan wi rek moo tax mais euh, c'est normal politique la xëccoo la. Ah. politique xëccoo la. xëccoo mooy kenn ku ne da nga ne bëgg na maa defal sama askan lu gën d'accord naa loolu mais ñi nga xam ne ñun lañ ko séqal. Mhm. muy la coalition Yewwi ak Wallu. Mhm. dañuy coalition boo xamante ni li ëpp si seen programme programme mu nax sénégalais yi la. programme bi ëpp si seen programme si ay sos lañ ko teg. ak ay Yewwi ak Benno. waaw yi ak Wallu. waa yow Benno foo koy dugg. attends ñun waa Benno ñun ñoo yor pouvoir bi di doxal. sénégalais yi si président de la république lañ am confiance. oui président Macky Sall la sénégalais yi dénk. Mhm. jox ko joxaat ko. jox ko majorité assemblée ñuy ñaanaat élection yi ñu joxaat ñu majorité à l' assemblée nationale kon ñun la peuple Sénégal jox confiance. Mhm. président di doxal indi ay programme comme ni nga ko limee sa bokk si plan Sénégal émergent. Mhm. ak programme yu baree baree bare di ko doxal si Sénégal léegi ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqal. ki si jiitu muy Ousmane Sonko nga xam ne anti système laa koy tuddee muy nit koo xamante ni du wax dëgg lépp lu muy wax fi mu koy teg mooy nax sénégalais yi wax lu dul dëgg bu ko neexee dem dàmpalu ji bu ko neexee dem maase wu ji. mais waa xaaral ma ñëw rek grand. dañuy waxtaan. Mhm. moom mi nga xam ne moo doon incarné rupture. moom mi nga xam ne moo doon incarné changement anti système ñi mu àndal tey ay magi jëmm ay paa yoo xamante ni. Aïda Mbodj moo yoroon këll bi di wër Sénégal naan maa carte ma caution fekk na leen fi bi fi Abdoulaye Wade di wut troisième mandat kooku tey mooy défendre Ousmane Sonko si affaire aji Sarr bës gi ak a bës gi moo tax mu ñëw jël ko def ko ci list nationale làq ko fa. Habib Sy mii moom la Aly Ngouille Ndiaye duma woon duma yu métti ya Linguère il faut ñu wax wax ji mu leer ñëw fekk ñoo xamante ni depuis Senghor depuis Abdou Diouf ñoom ñoo ngi fi Khalifa Sall ministre Abdou Diouf la woon. te Ousmane Sonko day incarné ne anti système la lan moo nekk changement diggante booba ak léegi ay da Mbodj moo yoroon këll bi di wër di yalwaan Sénégal naan ma carte ma caution Habib Sy moom la Aly Ngouille Ndiaye duma woon duma yu metti yàlla ngeen xam nga sànq dama la wax euh, mbiru coow bi ngeen di indi ci géewu politique bi. Mhm. bu élection ñëwee. Mhm. nga ne ma ci politique la bokk. waaw c'est la c'est la politique mais mais coalition boobu c'est des coalitions circonstancielles mënuñu jàpp ne aussi ci politique la bokk. waaw bu fekkee ne man dama ne. nitu rupture la. dama koy incarner. mais objectif bi c'est le pouvoir non non nitu rupture Ousmane Sonko. li ko may ay nit wala li ko may buzz. Mhm. mooy dénoncer. Mhm. diw sàcc la diw nangam nangam nangam. oui mais ak projet bi nga moom la am. déglu ma rek ma leeral aussi dama ne bàyyi mhm. fen moo gën jàng alxuraan. te Ousmane Sonko bàyyiwul fen fen rek mooy métier nga baal ma kàddu gi. ndax lépp lu muy wax sénégalais yi sos moo nekk si ginnaaw du wax sénégalais yi dëgg dem na ànd ak Adji Sarr lu namp def lu ko neex. Hmm? pare dé déglu rek ñu waxtaan. nga dem taxaw fële génn. non kàddu yi nag nañ ko non non mën nañ ko rafetal bu la neexee mën nañ ko rafetal mais ku dem si salle de massage 2 heures 3 heures du matin la fa yóbbu xam nga ko. ñun xam nañ li xew si salda de massage yi Sénégal. nga pare daw génn yuuxu ne dañ maa compaloté ndax aj Ousmane Sonko Macky Sall la ko fekk këram jël ko yóbbu ko nga jóge fa ji nit ñi sàcc wax lu ne tey ña nga xamante ni ñoo àndoon ak Abdoulaye Wade ñoom la àndal si coalition coalition bi li ko toj tey ay paa ak i mag la jël def leen ci list national làq leen fi parce que ñooñu ñoo ko doon défendre si bi muy euh, si affaire aji saaram bi ana jeunes yi mu doon wax ana rupture ana assemblée de rupture bi muy wax ñun suñu list Benno Bokk Yaakaar vingt 90 pour cent yi yi nga xamante ni moom la ñu investir ay jeunes lañ ay jeunes la président Macky Sall investir moom mu jël ay Habib si ay paa yoo xamante ni depuis lay Wade Habib Sy moom la Aly Ngouille Ndiaye duma woon duma yu metti ya Linguère Aïda Mbodj moo yoroon këll ba naan ma carte ma poche je pense ko mais bu ñu fàtte aussi ne euh, ci biir Benno Bokk Yaakaar nous avons Moustapha Niass waaw mais moom depuis Senghor mu ngi fi waaw mais mais attends attends euh, Moustapha Niass uh-huh. nee na dem na retraite moom moo ko waxal boppam nee na day accompagner politique gu président de la République mais laajatul benn cër xëccootul ak kenn uh-huh. moom moo doon président assemblée nationale moo jiite woon liste bi tey Mimi ture soxna su jàmbaare soosu moo jiite liste Benno Bokk Yaakaar. 80 pour cent jeunes la président Macky Sall investir demal nga vérifier sunuy liste ñun bi mu génnee. ñoom nag ay mag lañ investir ay paa yoo xamante ni dem nañ ba jeexal Ousmane Sonko rupture bi muy woo Sénégalais yi du rupture ñi mu àndal nga xam ne ñoom ñoom ñoo comploté seen bopp ndax ñoom la moo complot Sénégalais bu ñu ko déggee yi lañ ko déggee ak Ousmane Sonko ak i nitam ñoom dem nañ ba comploté seen bopp dégg nga. ñi nga xam ne ñooy wax ay sàmm jikko yi nga xam ne ñoom dañoo war a sàmm seen i ba pare doo a wax kenn mu sàmm jikkoom Abdou Karim Gueye génn na ne Dame Mbodj a dàq fen si senegal te ñoo bokkoon coalition. non yow da nga jóg pour pour pour jaxase wu. non non non ñoom ñoo ko wax wax ay fee man jugé jaxase wu ma de ay fee laay jugé. Mhm. Abdou Karim Gueye xàq moo génn ne Dame Mbodj moo dàq fen si Sénégal te ñoo bokk coalition bàyyi fen moo gën jàng alxuraan. ñoom lu tax mënuñoo bàyyi fen si kilifa yu toll ne ñoom dañuy waxtaan d'accord bu fekkee ne ñoom seen mbir mépp Mm-hmm. tey si diaboliser coalition Benno Bokk Yaakaar lañ ko bëgg a teg loolu day jeex. élection yu fi mas a jaar dañuy wër ne Macky Sall dafa bëgg a daganal góor jigéen day def loi nangam ak sàngam loolu du dëgg ñun ay doomi daara lañ man su bàyyi alxuraan la ma jàngal man daa doomu daara laa doomu soxna laa. boo demee Touba oustaz Mamor Fall daara la yor président Macky Sall lay jàppale bu gisoon si benn politique gu Macky Sall luy dooleel ak góor jigéen du ko jàppale.